mu mel ne que Djiby Sarr tey li leen indil ci suñu rubrique dellu cosaan mooy waral la mooy waral Djiby waral boo ko déggee mooy képp kuy jigéen ñu may la borom kër nga war a dem si néegu sëy di sëy bu njëkk na ko mag ñi daan defe dañu gis ni dafa am changement léegi xale yi dañuy takk rek classe groselle gi def réception rek ca guddi ga wala ca suba ga ñu dem apartement gis nañ ni barke dafa xaw a wàññeeku tuuti ci sëy crise de valeur yi bari na ci sëy xuloo yeeg xeex yi maara dem si ak maara day gaaw a tas yi yàlla ci yàlla musal yàlla nañ ci yàlla musal li ko waral mooy bu njëkk bu la mayee ba war laa jox sa borom kër nga war a jëm si néegu sëy dañ lay teg nga toog muur la woo ñi nga xam ne ay borom xam-xam lan ay imam lan ay sëriñ la ay léemukat la ñu ñëw kenn ku ci nekk joxe sa balaxal ma daa ñi lay léemu léemu la ñi lay ñaanal ñaanal la am na ñoo xam ni dañ leen di jël uniquement ñu war laa wër di la jat pour war a war laa mën a wax ne la jigéen bu demee ci biir néegu séem nii la war a taxawee jigéen bu demee ci biir néegu séem nii la war a comporté woo jigéen bu demee ci biir néegu séem lii la war a def pour mën a am doom ju baax yooyu yëpp dañu gis nii dafa commencé rare ci société lan mo dañ ba tax mu rare appartement yi. <laughs> Hmm. waaw lolu mom xamna ni suñu invité bi. waaw ah man na yaakar na dina ci am xam-xam. dina ci am lu mu ci wax xeyna na. Mhm. appartement yi lo bëgg wax ci appartement yi. appartement yi. da da bokk ne ko ne ko bokk ci tenge gi légui da bokk ci. tenge gi. dégguma la luy tenge. tenge. yéen nag da ngeen yi ngeen wax leen. mooy mooy booy mooy booy dem wuti jabar ñu naan la lii ak lii ak lii ak lii ngay joxe. léegi dañ ciy boole waaw charge yi warugar yi léegi léegi dañuy naan léegi appartement ndax da nga am ndax dina am appartement waa ndax dañ ko yóbbu ci appartement. te Djibi Sarr Diori. appartement yaa ngi toj dëkk bi de. Ah. maa xam nga ci dara. madame monsieur Xajba dégg nga loolu. xaj Xajba madame monsieur. ak chien bi ci buntu kër moo taxit problème bu mën a xew balaa yaay di ñëw wala papa di ñëw boobu moytuwul dina majeur. Ah, mais muur bi ça n'incombe en rien appartement bi également mën nañ la muur waral la comme comme. ni nga ko dañuy wax ni appartement yi léegi moo wari moo wàññi muur yi. ah non. ana rapport ban rapport la. am na rapport am na rapport de. mën nañ la muur wër la ñaanal la. après nga dem sa. sa rapport bi lan non non rapport moy lan rapport moy il faut nga ñam d'abord la famille.

barke yalla daan ñaanal yooyu gisatul ko. man sama préoccupation mooy muur bi ko moderniser. dañ ko ça se fait dans la famille c'est au niveau de la famille que ça se fait c'est pas c'est pas fu de faire réception. li ngay xool léegi séeréer li ñu def réception réception réception même bon, nga mën nga dem ba nek mère, faut ñu muur la.

xam nga tey bu njëkk ba comme ni mu ko waxee bu ñu la takkee ba pare dangay des ci famille bi pendant un certain temps nga nekk ci famille bi miinanteeg famille bi ñu continuer di la xelal bu ko defee bu problème amee sax ñoom dinañ mën a intervenir mais problème bi mooy ni mu ko waxee dañuy takk tey suba ñu dem appartement miinante ak famille bi kenn mënta wax ak yow sëru ku góor kii ay frère am ñu la sax pour mën a xam fu ñu lay jaar bu problème amee donc c'est c'est un problème aussi booy ñëwee si famille bi chaque fois parfois ay une fois la par semaine une fois par mois et cetera. donc duggante boobu amul. te bu njëkk ba sa jikkooy jëkkër sax. xam nga ko naam mais sœurs yi ñoo la koy ñoo la koy gën a matale. la ko wax ñu jaar ko fii jaar ko fii mag ñi tam di la xelal. Djiby euh, je suis carrément d'accord parce que culture moom rek la mais bi rek la am c'est c'est la mémoire collective. cependant cependant.

maintenant rapport bi nga xamante ne moom la kut ko kut biyaa gi ak Serigne Mbaye bëgg a créer dugal ko ci appartement c'est ma préoccupation mooy sama préoccupation ça c'est donc de de euh, nga ñu muur la ñu muur la

non bu rëy ah, daal. <laughs> maa ngi leen di dégg alors maa ngi leen di dégg. lan ngeen di xaar tey moom du leen sax may dara foo leen di waxee sëñ Ndiaye maa ngi lay tontu waxal. Roselle. oui. xam nga da wax ni maanaam dañu dañu dañoo boole ñaari mbir yu bokkul. Mhm. ki nga xam ne dan laa may war laa muur pour nga dem si néegu si yaa ngi dégg kooku ak ki nga xam ne si nii dañuy pare réception bi rek. Je jël ko ci appartement am sax jaar du am du fa jaar sax. am est-ce que yow la wax yow c'est à titre privé et très privé même euh, pour euh, jox la rek réponse bi nga ne mais ce que je te dis c'est Serigne Baye man séeréer bu ancré <laughs> bu am bo xamantene samay mam ak samay bàjjen ñoo ngi dund donc y a des choses yo xamantene aduna duma du jay mhm. ba ma koy def donc dara jaralu ma ko ci àddina sama plateau bi donc yenn yi merci non non euh, non non waxuma lolu c'est juste pour lui dire que euh. tout est question de choix en fait man peut-être mën naa opter pour ma pare réception dellu sama kër ñu muur ma yóbbu sama kër jëkkër ma wàcc fa ak yu kenn xam loolu kii la léegi keneen tamit mën na opter pour mu pare dem ci réception et puis am na loo xamante ne on l'a pas fait ressortir ci biir ak lan la xale yu jigéen yi di bañ ci muur léegi ci muur moom si lañuy ñuy yàqee lu bëri xam nga autant muur dañ daan defar mais ñu bëri dañuy raxaale pour yàq gis gis nañ fi ñoo xamante ne côté mystique

man koo fekkee. donc loolu dafa dafa dafa am solo c'est juste pour dire que ñu bëri bañu ñu muur mm-hmm. am na ñoo xam ne ñu ngi koy def en catimini mais am na ñu bëri loo xamante ne da cee laxasu ba dafa am loo xamante ne mm-hmm. euh, bu ñu ko defee li ngay wax nii yëpp mun na ñàkk ay laal na ma institution dafa am ay réalité gis nga gis nga dañuy naan bu ñu bu ñu jàppee sëy moo tax duñ ko gàttal mm-hmm. léegi ngay déggi rek diw de ñaan may nañ ko

mais mais elle est fragile bu fekkee hein? ku jigéen la ku góor ki il est fragile ku góor ki dañ lay téré guen dañ lay téré voyager mhm. bu dul yëgle te yëgle ba ngay dem bu fekkente ne vélo la dara am affaire yu ci tak dara du la jot ci yoon woowu

borom xam-xam yu bëri ñi nga xamante ne mën nañ koo def pour aar ñu bëri dañ koy wax rek c'est bien boo bëgg nañ ko bañuñu ko mm. mais il faut nga am ñoo xamante ne say maam ak say nijaay yoo xam ni ils sont xam nañ ci lu bëri genre Djiby Sarr Dioni nii bu subaa boo leen bàyyee seen doom duñ ko mën a def duñ ko mën a def te ku ko ku ko téye woon ko da nga

waaw loolu daal lan indi woon tey jii si am na solo de di santaat Mansour bu baax ci liggéey bu rafet bu sell bi. Mansour ban ci Mansour bi daa waaye Mansour monteur sama xarit sama sëriñ Mansour Ndiaye ci liggéey bu sell bi ak yéene bi.

appartement nga nekk Djibi Sarr tëjal. mu ngi fii di xuloo ba pare ci appartement la nekk mu ngi ñëw sonal fii sax askan wi xam na ni moom mii di leen yëgal loolu ci appartement la nekk. sëriñ Ba bul tontu te bul tontu. yow mi yaay ruube yow mi yaay ruube kat bi moom moo ko def.